reful surtout bu bu wér laa da ko jaay lépp jënd dërëm ba am ko dafa seede rek lañ ciy joxe ci sëñ Modou mi mëtu mëtuñu ko seede nag matuñu seede sëñ moo Guèye ak sëñ Modou Kara matuñu seede ci suñu diggante ñoom ndax ku ñu xam xam nga suñu diggante ak moom ñi nga xam ne dañoo xam ñëpp dañuy wax ne loo bañ sëñ moo Guèye xam ko bu ko sëñ ci la xam bu ko sëñ Modou Kara sëñ Modou Guèye nag li sëñ Kara wax ci moom ñun ñëpp ko xam ñëpp ku toog fii rek mbaa ku ko xam rek. xam nga ne li ñu wax ci moom ci bëgg Sëriñ Tuubaa ak bëgg lu baax mënu su ko weesu waaye li am ci mbiram li nit ñi xamul ci moom mooy dafa yeewul rek yeewu kese sëñ Modou Gueye du joxe sën sëñ du may Gueye du maye mbubu li muy dox njabootam goppam ngi sax àddiya la koy tudde koy joxe loolu doy naa ci seere amul lenn ku mu jox dara boo ko yëgee boo koy loo ko jox àddiya la koy joxe xam naa ni am na lu mu xam ci loolu xosu àddee moom xam na ci dara kon na ko ñëpp toppandoo ci loolu na jafe nag amut doom ndax man ab jarbaatam laa mooy sama nijaay amut doom amutut jarbaat amut soxna amut dara mbubu mii muy sol sax bu koy sol da koy fas yéene fas yéene so àddee Sëñ Tuubaa loolu nag ñu sës ci moom rek koo xam ci moom waaye du maye du saraxe nit ku soxor ku yeewu ku sobar loolu moom na ko ñëpp xam eh, wax ji dafa jafe ci man ndax koo xam ne kii ñëpp bàkke na la ne sa lépp sëñ moo duggee te man nungu naa loolu nungu naa loolu man nungu na waa féete sëñ moo duggee ak sëñ Kara man nungu naa loolu ku ma xam rek xam nga loolu kii nag di sëñ Modou Kara dama bëgg a wax nit ñi tuuti ci moom loo xam ne na ko ñëpp jàpp tey giñ naa ci sëriñ Tuubaa ne gisuma ku mel ni moom ci baatin gisuma ku mel ni moom ci saayir gisuma ku tabe ni moom ci daraja ndax dafa am fu mu jaar ak man dama daan génn di dem ci réewi naar yi mu tere ma ko ba sonn ma të tere ma ko ba sonn ma saa yu ma nee nii rek mu ne ma Abdou te ngaa ñam Afrique te ngaa ñam Côte te ngaa ñëm réew sàngam te bàyyi Arabie Saoudite yi ngay dem waaye nit ak lu mu tàmm rek benn bis ñoo dem màggal Daaru Musti màggal ba fajar fekk jënd naa sama billet ba war a dem fajar ma taal sama oto dem Dakar continue dem Arabie Saoudite ba mu yeewoo jógee ci ci woo ma téléphone ne dem leen fëgg Sëñ Abdou ci néegam ñu fëgg fëgg ñu ne ko nekk fii mu wote woote jotuma ma dem Arabie Saoudite ku ma xamoon su ma la woo téléphone doo ma faale su ma génnee kenn du ma xool ma tumurank fa tumurank goo xam ne musuma koo tumurank ci àdduna ba aj gi ñëw mu aj si moom mii bi mu agsee ma séen ko ma jëm ci wanag bi ak samay kii séen ko xàmmewuma ko ma def yëfi murit rek foofu ay murit ñoom xamuñu loolu waaye ma def yëfi di rek tàggoog sama sago fëlañ fëlañ ñi ci suuf mu ne ma ne ko kañ nga fi ñëw mu ne ma damaa aj si ma ànd ak moom gees gis sama benn xaritu naar ma ni ko kii sama kilifa néeg biñ ko dalal ñam fa nekkal ñu ay taalibe xam ñu murit ah, ay colonel ak commerçant yoo xam ni duñu ay sénégalais ñoom lañ bokk moom lañu boolee benn xayma ma dem jënd matelas ndax nit moom loo bari bari bari daraja boo demee Arabie Saoudite di nga tuuranke bu aj jotee boo fa demee di nga xam ni foofu kenn rek a kilifa waaye nag moom keroog wane na fa Serigne Touba damaa dem jënd matelas bu mag ak yi ci war a andi yëpp dem jënd sama ñaari gàtt defar ko ba mu mel na mu yenn benn bi sama naan bu xarat naan yenn benn ma dikk teg ko ci kanamam mu woo ñi mu bokkal foofu ñu jëfandikoo am na fa benn colonel keroog Cheikh Tidiane mbay la tudd colonel Cheikh Tidiane Mbaye daf may xool ba mu ne waa sëñ bi yow li ngay def nii lan la ma ne ko man. mu ne ma ne ko ma ko de waaye kii ci moom laa koy def waaye kooku fa mu mujjee sëñ Modou Kara ak googa booba temps Idriss Seck moo nekk premier ministre ak googa yannu na boolib boolib ceeb moom colonel bi dem yóbbu ko ci benn xayma am na ko sëñ Modou Kara am yónni ko ba mu dikkee jox ko soxna si pa da ko ne xanaa soxna si jaaxle nga de colonel bu yenn ay booli di ko indi mu ne ko waaw mu ne ko ki ma gisee ko waral ci gàttal dama leen di wax rek dafa gudd ci gàttal ba ñu fa jógee ba aj ga jeex ma ànd ak moom ba aéroport di ko nga mu ñibbi mu ne ma sëñ Abdou man de doylu ma ci yow ma ne ko ah man mi doylu ma ci yow de ba ma jógee moom ba mu duggee ba ma wàññi koo gën taxaw ci buntu bi ma jox la ma ñibbisee ci bis bay dël si maag moom moo moo kii ba mu tàllal sama loxo ne ma namm naa la de moom daal damaa bëgg a ñibbisi léegi rek ma ne ko bu lay neex rek boo koy dogu rek bi mu demee ma wàññi taxaw waaye dawal ab tom ba taxaw sama tànk ne ma foo jëm jidda comme foofu moom ñëpp saay-saay lañu na ma yàlla yëgal ci waxin ñemewu ma ko ma ne ko déedéet mu ne ma yéegal ma ne ko déedéet mu ne ma yéegal man du ma dara yéegal na mu lay yóbbuwaale ma yéeg mu ne moom sëriñ nga ma ne ko moom sëriñ mu ne moom sëriñ nga ma ne ko moom sëriñ mu topp ma ba fi ma dëkk mu taxaw dimbali ma ab sëriñ nga ma ne ko loo bëgg mu ne ma nangam may tàgg ma ne ko ah dinaa la wut ku ma la booleel may tàgg toog mu yëkkati ab lim bu am solo jox ma ma dem xool ko daal di dem dagg sama billet bu sama yére ca guddi ga ma woo ko mu wax ma soxlaam ma ma ne ko ba suba ca suba sa yàlla kay faj faj soxlaam mu xewal otom ba ci sama kër ne ma loo bëgg ma ne ko ñibbi mu ànd ak man ci marché ba jëndal ma ay yére yëkkati lim bu am solo jox ma ñetti fan ma jitoo Sénégal bi mu dikkee non loolu te teg naa fa ñetti weer mënuma am ñaar dërëm yu muy téléphone mu mënuma koo woote waaye ñàkk tàggu gi ma ko ñàkkoon tàggu moo waral bi ma dikkee moo nekk ma da ngay dem Côte d'Ivoire ma dikkee fii di dem Côte d'Ivoire mu daal di woo waa Côte d'Ivoire ne leen kii ñëw sama rakka lu ngeen ma fi dencal bu diggéen ngeen ko jox ma ne cëpp Côte d'Ivoire fekk ci aéroport bi lu lu mat fukki oto jëm taxaw di ma xaar dugal ma ci oto jëlal ma hôtel di def li ñoo def yëpp mu bàyyi ba woo daay de bët mu leen kooku fi toog ku fi am ñaar yo yoo xam ni war nga ma jox mu am soxla te joxoo ko ko boo ma ko joxee baalu ma la ko xanaa tabe ci daraja foofu la ma ne benn gën yi ba fii ma toog nii Côte d'Ivoire fu ma fa taxawee ak fu ma fa lu ma def rek lu ma laaj ñu jox ma ko te jëmam rek a tax ndax kuy teral koo xamul kala booleeg moom moo tax ñoom xamuñu ma xamuñu ci man dara su ma ñaanee bu nangoo baax na bu nanguwut baax na su ma laaj xaar daal jox ma ko waaw sëñ Modou Kara mii loolu yàlla gis na ko ci moom tabe na ci daraja te li mu xam man na maa waat ne bu ñu du ma wax ne moo ëpp xam-xam ci àdduna de ndax bàyyi motloo mustama wax loolu waaye man na dama ne nungu naa ne bu ñu tajaloon fukki ñu ëpp xam-xam ba ne ñii ñoo ëpp xam-xam ci Sénégal bu ñu ko laajee juróomi baat yu mu xamul moog sëñ moo duggee mii dañ leen ko dana danañ leen laaj fukki baat yu ñu ñoo xamul donte ëpp ñu leen xam-xam nag ndax nit mënta xam lépp kon ci gàttal daal ñaar ñii moom na ñëpp seere ne lu nit te mënoo koo am ci ñoom boo demee feneen doo ko am ak foo mën dem nag kooku man leer na ma ndax it nag amuma xam-xam waaye dox na tuuti te dañ nag réer wóor na ma ne ñaar ñii wallaahi asim ku ñu bëgg a fal suba nga fal ku ñu bëgg a fuli suba kii nag sëñ Modou Gueye jënd la tudd moom loolu moom maa ngi leen koy wax ñëpp ko xam ñi ko xam ñëpp noonu ngeen baal ma dafa naqaree wax wax ji dafa fi may waxee dafa waxe waaye ku baax a ngi nii daal ku yéemee ngi nii itam na lépp lu mu lu mu lu defalul nit dafa bañ waaye lu mënul amut asalaamaaleykum wa rahmatullah seraful su tub yoon nin bu jaay lépp jënd dërëm ba am ko